alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi man ngi sant borom bi subhaanahu wa taala julli bi sallallahu alayhi wa sallam ndax feebar yi doxalin bi ni ñuy doxalee mooy habitude yi ñuy amee euh, ak comportement yi amee ci lekk yeeg naan yi mooy indi jafe yu baree baree bari moo tax yu mel ni day am solo ci orienté ñi ci seen wàllu ni ñuy jëfandikoo lekk yi ak wax waxtu yeeg yëpp dafa am solo kon ni ko waxee rek noonu la amee léeg nit bu feebaree rek dafay bari ay fajkat ci ñoo xam ni du xam-xam bu ñu jàng lu ñu xam lu dul gis nañ nit ku am feebar bu mel noonu rek ñu ne ko jëlal nangam loolu erreur la ndax euh, fukki feebar mën nañu niroo ay symptômes te duñu bekk benn yow boo jàppee ni li dal kee moo dal kii rek jógal ko garab mën nga juum moo tax boo demee ci al usul al ilmiya athabita mooy yi nga xam ni borom xam dañ cee dëppoo nga xam ni moom dara mënu ko dindi moo xam euh, qadiman wa xadisan ñu njëkk ñaa ngi mujj yëpp dañ ciy dëppoo mu nekk ay règle yoo xam ni dafa wér ci wàllu faj nga xam ni du changé euh, mooy dañuy faral di wax euh, al ilaaju bi duni faxsin fa huwa ilaajun mamnuun minhu shar'an maanaam di faj malaat boo gisul boo consulté wu lu ñuy terala la lu ñuy tere la moo tax garab yi nga xam ñuy faral di wax rek dañuy tudd ay njariñam loo xam yi muy faj waaye nag ki ko bëgg a fajoo dëgg dëgg dëgg nag laaj ne dëgg dëgg consultation kon ni ñuy waxeen consultation ci ay xaajam ay xaajam dafa am consultation boobu la ñu moom la ñu alfaxsu tibbi euh, li ñuy wax euh, alfaxsul ibtidaa'i mooy consultation boo xam ne docteur bi bu xoolee malaat bi rek xool symptômes yi nga xam ni nga yi feeñ ci kanamam kanamu ki feebar moo xam der bi la walla bëti la wala tuñ bi wala làmmiñ bi euh, wala weeyi wala yaramam euh, wala tuur ndoxam sax mu gis ko mën na ne feebar sàngam la ame wala li ñuy su sariir yi mooy consultation bu gën a kawe boobu mooy xool tension bi ñaata lu joxe température rek yu mel noonu waaw bu fekkee gisagul feebar nag mu dem ci li ñuy alfaxsu yi mooy bi gën a kawe mooy yu mel ni ki xeetu analyse rajo écho yu mel noonu yooyu yëpp loolu nga alfaxsu takmidi yooyu pour docteur bi rek xam fi muy teg tànkam fan la ba mu du mën a làmbatu feebar bi xam ni feebar bi kat lii la pour mën koo saafara noonu bu ko waxee noonu la amee moo tax léeg-léeg tegtal garab te doo faj kat erreur la njuumte la te yonent bi sallallahu alayhi wax na ci xadis ne képp koo xam ni dangay faj te yow doo fajkat du xam-xam boo amee. xameewuñ la ko te doo xam-xam boo amee mu ne fa huwa daamin kooku day nekk responsabilité ci benn bakk bépp bakkan képp ku mu digal garab te du fajkat day nekk responsable ci bakkan boobu kon loolu ay mbir yu doy waar la lu lu xaw a doy waar la ndax mbiru faj comme niñ ñu ko waxee rek du mbiru caaxaan du lu ñuy làmbatu waaw mbir mi du làmbatu comme ni ñu koy damay làmbatu rek déedéet bu mbir mi du làmbatu oto bu paanee dañuy woy mécanicien boo xam bu ñëwee day xam oto bi ban paan moo ci nekk waaye du ñëw di làmbatu déedéet yaram doomu aadama kenn du ko làmbatu kenn du ko làmbatu dañuy xam lan mooy tawat bi lan dëgg-dëgg ci lan mooy feebar bi waaw consultation mooy déterminer loolu buñ ko consulter ba xam lan mooy feebar bi nag léegi ñu mën a juglu ci faj feebar bi waaw xam feebar bi lan moo ko causé waaw lan moo ko war ak li koy saafara lan la ak nit ki yan lay moytu yooyu dafa am solo ci xam ko Euh, comme ni mu ko waxaatee euh, ñun dañoo am nattu bu baax a baax a baax ci ñoo xam ne dañuy orienté ci xeetu lekkin ak ni ñuy lekkee waaw moo tax lu ñuy wax ilmu taxziya euh, mooy xam-xam bu jëm ci wàllu li ñuy lekkee wàllu alimentation nga xam ni ñi koy gëstu jàng ko nekk ci ay boromi xam-xam dafa am solo ñu koy leeral askan bi xamal ñu lekk yi sàngam lekk yi nii lañ koy lekkee lekk sàngam nangam moo ci nekk ci ay vitamine euh, yu mel noonu ak liñ dul jaxase ci lekk ak li ñi nga xam koo boole yooyu dafa am solo waaw moo tax boroom xam-xam bi wax ni que ton aliment soit ton médicament waaw loolu Abu Xara doon wax que ton aliment soit ton médicament li yakun ghazaa'uka dawaa'uk li yakun ghazaa'uka dawaa'uk nekk li lay faj mooy li ngay lekk moom la ibnu sina doon wax taamukum dawaukum euh, dawaukum fii taamikum seeni garab mi ngi ci seeni lekk yi ngeen di lekk kon loolu dafa am solo loolu mu ëpp solo ci li ñuy fajoo mooy li ñuy dundee loolu lu am solo lu mat a bàyyi xel la wax na aussi ci wàllu wàllu doxalin mooy tarixatul istimal façon bi ñuy jëfandikoo garab bi façon bi ñu koy jëfandikoo loolu lu am solo la ndax léeg ni nit dana jël garab gu am solo bu bari njariñ lool mu bëgg ko mu koy fajoo te du ko amal njariñ ndax mode d'emploi mooy nim koy jëfandikoo moo tax amul ko njariñ imma ni ko waxee garab bu wax mustaxlab la dañ koy infuser maanaam da ngay baxal ndox sotti ci ndax garab gi volatile la soo ko baxalee njariñ bi day dem comme xob yi ci bëri daanaka xob yépp dañ koy infuser dañuy baxal ndox ba mu bax sotti ci bàyyi ko mu yàbbi waaw bu dee garab goo xam ni ndox mu tàng bi du ci gaaw a yàbbi bala mooy yàbbi day fekk ndox mi sedd boobaa li ciy gën mooy da ngay am lu mel ni ki termus xam ne boo baxalee ndox mi da nga ciy sotti def ci def ko ci bàyyi ndax tàngoor boobu euh, ndax termus bi dafay conservé tàngoor bi ba nga xam ni garab gi dina gaaw mën a yàbbi ci biir ndox mi ba njariñ bi li ñuy wax euh, euh, ba ferñeent yooyu du dem waaw ba ci xeetu yenn pepp noonu la waaw kon garab bu fekkee dañ ko war a euh, def mustaxlab mooy infuser ko xooj ko ci ndox mu tàng euh, yow nga baxal ko boo sàgganul boo war a am quatre-vingt-dix pour cent bu defu ndànk mën nga am euh, quarante pour cent loolu day wàññi efficacité garab gi efficacité doo koy néewal doole doo koy néewal doole du am njariñ njariñ bi du bari waaw day koy néewal doole loolu aussi lu am solo la lu jëm ci surdosage ba tey dañ koy wax surdosage garab yi bu ñuy xir ñun yàlla daf ñoo nattoo ñun ci Sénégal yàlla daf ñoo nattoo ñu nekk ñoo xam dañuy xir lool dañuy xir surtout garab dañ cee xir te garab moom euh, xir ci nekk lu gën waaw moom la Ibnu Qayyim di wax ca xadisu euh, Abi Saïd al Xudri bi ñuy char xadis bi in qalla dawaau an ida lam yazil wa in tajaawaza ahdasa daral axar garab gi bu néewee ci faj bi du bu néewee ci feebar bi du ko faj bu ëppee day lor léegi da ngay tàmbali ci lu néew di faju boo gisul tan nga yokk tuuti waaw soo ko suñ ko yokkee bu ko docteur bi yokkee ba gis kimie bi dosage bi baax na dina def effet mais xëy xëy bëgg jël dosage bu bari jël garab yu bari boole ceeg di yeewaale ñenn ñi mooy léeg-léeg bi da ngay tudd ay xeetu garab garab sàngam baax na ci nàngam garab sàngam baax na ci nàngam yow nga jël xeetu garab yooyu yëpp ginnaaw baax na ci nangam naa boole lépp baxal nga baxal ko nag mu indi la si surdosage wala mu indi la jafe-jafe boo xam ni danga fay jaar mu indi la xam ni dootoo woon jege garab wala fu la garab xeeñee ne eh garab sàngam man day garab nangam loolu erreur njuumteer bu rëy rëy la lu ñuy bàyyi loo xel nit ñi la waaw moo tax garab daal bala nga koy jël jokkoo ak fajkat nga laaj ko garab sàngam waaw beneen bi mooy ki nga xam ne dafa nekk sous contrôle médical mooy sous surveillance médical docteur di ko suivre warul jël benn garab sans avis docteur boobu warul naan beneen garab bu dul bi ko docteur bi jox wala mu jox ko docteur ba laaj ko garab sàngam day ndax baax na ci man comme moom moo lay suivre di xam sa yaram di nga defal traitement nga xool ndax garab mu xool ndax garab bu baaxee mu ne mën nga ko jël su baaxul mu ne mu ne moytul waaw mi ngi mel ni rek. tey jii nit ñi ni ñuy làmbatoo ci wàllu faj dem fii faju jël ay garab gisagoo ci maanaam gisagoo ci tan yaa ngi ko ne garab dem ci beneen fajkat mu joxaat la yeneen garab ngay jaxase ay garab di jaxase di jël loolu da la indi feebar bëri na feebar yu bëri ñuy tudd loolu mën na ko sabab ki problème mu réunion muy feebaru rein di jëfandikoo ay garab yu bari yu bokkul waaw surtout yooyu yu mot moytu la waaw jaxase ay garab yu baree baree bari da ngay jël benn garab rek su fekkee gis nga ci ñu xool beneen buñ ci dolli moo tax lii naan yu nii di wax muy grec yi nga xam ne ay borom xam-xam yu mag lañ ci wàllu faj ndax ñoom dañoo jël ñoom ñoo njëkk a jëlee wàllu faj ci ci grec yi ñoom daan nañ wax bokk na ci liy réussiral docteur bi ci fajam mooy mu tàmbalee lekk buy faj mu tàmbalee ci xeetu lekk yi waaw mooy nit ki garabam bu njëkk na nekk gara nekk li muy lekk garab waaw moo tax mu ne euh, wa min saadati tabib an yudaawi bil ghidha na tàmbale ci ay lekk fa in ajaza fa mu fat su fekkee garab gi néew na ci faj feebar mu tàmbali benn plante nee na su fekkee loolu faju ko nag mu ne fa bi ma aqallu tarkiba lu gën a néew ci ay composant na ko boole moo tax tëb tëb boole garab yi bari di ko naan mën na indi jafe-jafe ci wàllu santé loolu may dénk la mbokk yi orientation yi may joxe la ñu bàyyi xel lool bu baax a baax a baax a baax kii dem hôpital di faju ci ay docteur di naan ay comprimé na mooy tu dégg benn garab bu cosaan rek mu dem baxal ko di ko naan boole koo comprimé yu mën na indi ay jafe-jafe waaw mu bañ ji jaxase ndax am na garab yoo xam ni boo koy naan boole di naan garabu tubaab yoo xam ne naan boole garab yi nga xam ni garab yi xob la di ko boole mën na indi ay jafe-jafe yu rëy moo tax toujours di jokkoo ak docteur bi baax a baax waaw loolu mu am ay pëndëx ay xeetu euh, pëndëx yoo xam ni. mën nañoo naan mën nañ koo jàllale ak yoo xam ne kenn du ko jàllale dañ koy segg yooyu yëpp dafa am solo loolu day am solo bu baax a baax waaw moo tax orientation yi docteur yi di ci faral di orienté xob sàngam wala pëndax sàngam mën nañ koo naan xëpp pëndax kenn du ko naan nañ koy segg yooyu yëpp yu am solo la waaw loolu daal problème la boo xam ne dañ koy dund moo tax yooyu jar na di faral di orienté comme ni ko euh, Cheikh Diène waxee euh, lu am solo lu mat a bàyyi xel la wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu